bagada info tv natalamba sonko du misra mba be kontonna bak bak atul encore que bagada info tv suivre partout dans le monde partout dans la dans toute la diaspora bimba sonko du misra le sonko du misra ale alon sade mi alon ko sade mi renamu te sade mi anka bo sonko du le te sade bal fanamu te aussi sade mi à la population ils sont franchement motivés pour le développement de leur village donc, Mbalak Niami, Alonka a été construit euh, par toute la jeunesse euh, de son Sonkodo particulièrement. Euh, voilà, tu vois. Donc, Abon euh, comme il a construit Kabiri 2018 par l'initiative donc de Hidio Sidi et aussi avec toute la jeunesse de Misra comme mi ye a lon construction barmati formi miŋ hijoo ani fasate moolu donc eh, hijoo seedi ala ye a la motivation on a la ambition aniŋ a le la vision pour jam jamma fana développement kiña la moo be te moto to donc ani jaŋ saate moolu fanaŋ ka parce que tamit

Lamine Makam Kanté, mais ça euh, je ne jeunesse le président dit, animé euh, chef chef de projet ni au fanam Donc mon foutage ça été al kalomani ça été imam. Mais plus tard Inch'Allah, taala mon le béman. Yo, m'en profiter là pour que euh, chef président euh, de la jeunesse qui est une interview qui est c'est-à-dire projet ni a réaliser to ñaadi le yo o sifalo mba ñin kala wolle insha Allah taala euh mo hono min kanti mbal kondo no baaki

wulo kono sila kuwo man soneya je caméraman o ese o sala folota jel wala bakara info tv bakara info tv ese o premier lota depuis naccebalu mhm. c'est ancien technique naccebal kañine kenu mhm. dirin dol fawol kañine ki nin sama keta jiyo kam batandi jang mhm. buka paseno nata bula ancien pont mo nek ni de ancien pont mi mo nek ni so se ñu ne salo buka paseno nata bula kuwolu kono ka solution wolu ñini pour bañing sa do kuno hmm. pas parce que maladie ol l'hôpital hôpital o e ka fay kerden hmm. pour ka déplacer kataji à 4 km alaje jambe mu farolti hmm. bon nata kacha pour que solution du be be do kula en chien chaque année par rapport ñimbe pempendi ñame do rek aka pour ka passer ils n'ont pas de moyens. prend mm. le pirogue là et ye kulungo ñinjale san san diniol tata snaro la men ja bon muso te wo tano la pour ka passer mm. bon ça fait zéné sol nata wuli ka kacha mm. ka solution ni ñini hijo nata ka kafuma ça sate molum faol le nim technicien ol kachata ka yiro fara na propre moyen la cembol le be lorin duma wo cembol kambani wo kambani nka be cembu yiri nani tela nin sati fo nin cele muy mm. hani 4 km ye mm. fere kay futa jang mm. nga listo de da momo nyela cembo nati nyeto sate listo to nga landi mm. biri yiro sita nga cembo calculer a sita be cembolo la distance o men na bako na nga wo fanan calculer a sita natna na na lumuta ka yiro planche o be bondi kasamanan mm. kana bato mm. mm. ni jonata kantara kan ko albe do kula me yalon ko c'est très important bon ate fana mu c'est un citoyen dans les zones de sonkodu bon ka itandi bakara tv la ko anata kafuma eh, ka do ko renforcer mbulu eh, nata lumembe do ko nyinkela afana nata kafuma na ka chata ka idel fayño kan anata makoy parce que en ce moment là ka pontolu sagné mm kana ka niso san nye plus que 400 000 mm -hmm. eh, ka mano san ka tulo san mm-hmm. misra ma beta jele mankono ma beta jele kerdem ma beta jele tuba ma beta mm-hmm. jele mm-hmm. jalaba ma beta jele e jambati ma beta jele dinkray kata aleya ñin sifa dron wo be siari mbulu jam men yalon ko hanbi imandadano ni ñoo moyon be mbul hansa ñanta ka menki jang wala jang yata ñinti mais manque de moyens démarche kono parce que on a tellement si silo tembul hmm. sa maladie avec la pluie il passé la ñaadi bon anata kafuma e ka mbulo Nyokan, ka a makoy un hmm. qui eh, ke banque diŋo hmm. alors la faut banco là parce que a sarano est ay concentré sans investir, investi d'une part bon wo nata silo ça te dit il y a pas aucune nin sa technicien mbije mais alors ko tambi wolon ka c'était moi parce que kita ñawñara ndin jan domandin wolum sa do ko min bijam même franci babaro comprendre domandin ntelem butun natna ka mesuration ta nga centimetre ta nga fayño kan ndongol doye lojan doye lojan doye lojan sate fondingel fonle babaro be la ka be pempen fa fundit ay ni so mendina nin tulol atal nin suprol na faja ne kanyum para koto men na fajele to nga busi jelto sate musol benata nga tabiro kijang e eh, nga silo ɗo ko anin ñinantema ça fait trois ans machallah bon momo na nar a yaaje euro or isi passé ni la maladie o mm. sans problème bon mbaa tentula mba jayi la mm. eh, ala banku diya kan ka banque mool maa koy mm. merci beaucoup ok à bientôt eh, merci beaucoup euh, monsieur Lamine Kanté mbok yi ñokoy koy parce que tamit li ñaan naan weddi gis bokk ci ndax li wa dëkk bi def wax dëgg lu reuy la lu lu lu mucc ayib la ndax tabax li mel ni lu aajoog yu mel ni comme financement yi fi jaar ak tamit coono yaram ji fi mu fi def ak xalaat xel mën na xam-xam bu ñu fi def tamit loolu wax dëgg yàlla lu jar a sant la te it lu jar a bàyyi xel la te it di gërëmu tamit maanaam waa gox gi waa gox ñi nga xam te ne maanaam ñoo liggéey liggéey mel ni suis bi mel ni wax euh, war na ci suis xel bu yalla donc euh, dañ doon sàkku dañ doon euh, lacc suñu mag moy président moy jiite manam waxambaan ci dëkk bi tay dañuy profiter di nga ni chef de projet non mm-hmm. voilà il comment Omar Omar Kante Omar Kante ah d'accord euh, Omar euh safuno euh, proto waaw capru moom moo moo moo defee yaakaar ah si encore dañ dañu dañuy gëm a profité waale wolof comme ñi nga xam di ne parce que tamit Bagara Info TV du soose rek ñokay koy seetaan maanaam Bagara Info TV ñokay koy ay français lañ ay wolof lañ wax dëgg yàlla donc comme wolof moy lac national té dañuy profiter waale di lac siñ bi mu gën leen leeral ñi maanaam euh, mbir mi ci wolof. Ah, ngi di nuyu di leen sant di leen gërëm euh, ci TV. bu ñuy taxaw nii mooy dëkk bu ñuy wax Missirah Sonkodou. on est tellement enclavé. vu ak diggante tali da ngay dem à 30 km 40 km bon nekkoon nañ fi fi ak dëkk bi bini sekk nii muy Kerdin. distance bi doon 3 km 4 km ancien pont bi ngeen di gis nale suñu maam yi noonu lañ daan tabaxee léegi ñun ñu dem ba àgg ci certain niveau ñu waxtaan suñu biir ñu ne waa dëkk ba ñëpp koo xamante ni jeunesse la te yaa ngi fii ñu bind sa tuur ñu xam ñaata nit ñoo fa nekk kenn ku ne ñu sas la ñaata banta ngay dagg ak foo ko mënta dagg nga fexe pour mu mën a àgg ci pont bi su boobaa ñu ut suñu solution waxtaan gisee ak osphoré ba ñu libéré ñu certain niveau pour ñu xar planches yi bon ci la ñu nekk temps en temps Hidio jaar fii mu jéem a waxtaan ñun ñu xamal ko ne franchement bu ñu amee dimbal tamit dinañu gën a arrangé léegi mu ñëw ci la ñu wax ne bon man mun naa leen jàppale ki benn côté mun naa jëndi ponte seen dund mun naa ci taxaw génne na xaalisam mu jënd ci ay nag quatre cent mille mënoon na ko dugal feneen jënd ci diwlin ak ceeb lépp kero waa dëkk bi yëpp ñoo génn mm. lu tolloo ay huit villages daje nañ fii nag bi fii lañ koy rey ñu liggéey pont bi ça fait trois ans mu ngi ni liggéey nga même guddi mm. ku ñëw fii mun nga jaar fii ak sa moto mm. bon sa maladie certaines jafe-jafe moom dootul mën a nekk parce que amoon na jamono fii boo fi jaar comme mag yi nu ñu daan defaree fale day taw rek taw bi ñëw jël planche bi mu yóbbu ko bon moom bu mu fekkee ñuy liggéey bon ci la yokku xalaatam jëndi ay pont mu léegi ça fait trois ans amul benn planche buy mën a déplacer nu mu tawee tawee tawee planche bi day des bon lu mel ni ci yoon bi ba tey am nañ ko ñu ngi ciy sàkku ndimbal képp kuy sénégalais ñu ngi fi de la zone de Sonkodou a commune de Diambati am na yeneen yoon yu mel ni bëggoon nañ ci liggéey te ñu ngi ci ndimbal kuñ ci mën a jàppale ku mel ni Hijo Bagdad TV merci beaucoup. waa Simi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Euh, dafa mel ni sëñ bi boo leen déglu baax ci cadre doon na message boo xamante ni maanaam euh, message de kii la euh, soutena soutien la pour ñi nga xam ne maanaam ñoo ñoo nekk ci dëkk bi. dafa mel ni maanaam ci cadre dafa mel ni dafa waxaale dafa am dañoo am beneen projet projet boo xam ne projet de construction d'un pont bu mel nii boo xam ne amaana que moo gën a yaatu wala moo gën a gudd bi waaye boobu te dafa laaj maanaam eh, xaalis bu bare te it muy ndimbal ndimbali ñëpp képp koo xam ne foo mënta nekk si kaw suuf te ngay seetaan Bagara Info TV foo mënta nekk nga jàppale waa Missirah ñu mën a tabax seen pont bi pont boo xamante ni dina mën a jàppale ñëpp maanaam ñëpp ki xaj njëriñ bi maanaam ñëpp koy bokk moo xam maanaam góor wala maire yeeg ah, rawatina ñi nga xamanteni manam ñi nak état de grossesse ndax dañuy nak état bo xamné ne léeg mu xaw doon gudd ay xaju gudd ñu xaw sonu sonu bu mel donc buñ mel buñ ñëw buñ ñëwé manam pom bi deug yalla da fay faciliter euh, sen euh, métit bi. wax deug yalla ak tamit malade yo xam dañuy nekk état bo xam da fay da fay doy waar donc euh, li de message la bo xam ne manam ñëpp ko bok ñëpp ko mom té ñu bàyyi xel bu baax ba képp kuy seetaan Bangeraa info TV ñu jàppale ñun ñëpp ndax du waam Missirah rek ñoo ko moom dëkk bi ñu ko wër bari nañ am na fii mankono li ñu mankonon di ak tamit Cerdin tamit wu dëgg yàlla ah, ah ñuy de ay dëkk yoo xam ne maanaam ñoo bokk dex bi lii ab dex la boo xam ne maanaam dëkk yi ko wër bari na trop mbokk ñu ne ko ñoo ko gisandoo dina waroon na si jàppale bu baax ba rawatina eh, toute la eh, autorité yi nekk ci commune de eh, Diambaty yi ay jaaroo meeg al Carrefour wax dëgg yàlla bu ñu war a def politique kese ndax lii la lii lañ lii mooy seen njëriñ maanaam jamono yoo xamante ni waa gox gi ñoo leen soxla muy yii yi mel ni intérêt yoo xam ni maanaam maslahatul amma la maanaam intérêt général c'est pas un intérêt euh, personnel donc fii la politique amee njëriñ seen politique nag dëgg yàlla mu ngi koy def maa na koy def. comme yi jamono yii waaye waruñoo tax pol élection yi waruñoo tax bu ñu bu ñu ñëw ki ay wax naa leen def li naan tey du def dëgg yàlla maanaam waa Misra ak ñi dëkk yi ko wër soxla na genre pont mel nii te ñoo ngi koy su ñoo ngi ciy sóobu ah, maanaam ah, pont bi liggéey bi dafa laaj xaalis bu bare wax dëgg yàlla même donte maanaam waa Misra am nañ kàttan def ko waaye tamit.

dat sëñ bi taxawal defal ndànk defal ndànk defal ndànk da nga yàkkam lii ñun ñoo ko liggéey xam nga waaw defal ndànk waaw defal ndànk mbokk yi mbokk yi ñoo ko gisandoo ndax lii preuve la boo xam ne preuve concret la ndax pont bi gisee bu nga ko tabaxee ba tey tabaarkalla euh, pont bi ba nga ko tabaxee ba tey tabaarkalla maanaam borom charette yëpp ñëpp fi jaar euh, borom charette yëpp ñu fiy jaar. ñëwaat euh, nii may ko mu dem waa ji nga xamante ne moom mooy yàpp

wax dëgg yàlla lu mat a bàyyi xelatu lu lu lu ñu war a sant la wax dëgg yàlla donc euh, ñuy euh, remercier waale maanaam ñi xanaa jaaroo leen fii bi ngeen di dem non non ñuy doon ñëw mosoo leen fi jaar acuuj acuuj bagara dere pati man dinaa man maa ngi ñëw TV euh, ndole naa ko dénke que doo ko ñu yo mba samba ñu ci cappaandaw liggéey bi jàllal Euh, fu mu ne nii dañuy laajtewaale sim bi mu gën ñu leeral tamit euh, seen mbébét yu ñu am comme seen avenir fii kii euh, dex bi dëgg yàlla dafa mel ni dañu amaat yeneen mbébét encore damaa bëgg incha allah mu gën a leer mu mu sàkkuwaale tamit maanaam ndimbali ñëpp rawatina autorités yi ak ñaaxam nga am nañu doole pour ñu gën a mën a jàpp ci liggéey bi donc sëñ bi bisimilah. bon lu ma ci jot a wax ci olof pour ñëpp gën a dégg affaire bi gën a yaatu bon pont bu mel ni bon am na ñaari yoon am na beneen pont bu mel ni mu ngi fee boobu buñ koy attaqué ak léegi ça fait quatre ans ba léegi mais ñu moyen parce que jot nañ waxtaan ak benn technicien mu am luñ ko jox parce que on n'a pas les moyens léegi dagg nañ añu ay banta lépp bu ñu mesurer ñu samp mais kooku il faut mu am machine jël dimension bi pont bi tamit il faut que mu jóg ci kaw ñu mën ko dagg ñu mëna am ay poutre yo xamanteni ay épaisseur 9 la sur dix parce que lu 10 mën fa romb même auto yi ndaw yi lool tamit pont baa ngi foofu ba léegi ñu ngi sakku ñaan parce que xam nañ affaire l'état nu muy démé bon ñun joytu nañu presque 10 ans 20 ans gis ñu kenn mais ñu ngi sakku lu mel ne Bakadaj TV comme genre melni mel Bakadaj Info TV yu melni ni Hijo Mmh. nga fekk wa gox ñi def dara mmh. nga indi sa moyen mmh. jappalé len pour ñu gëna am courage bon yu mel noonu ñu koy sante diko lu mel non ba mu ngi fi ñu ngi sakku dimbal képp xamanteni sénégalais nga soit diaspora te am nga moyen wa Misra wa Mankono wa Touba wa Jalaba ñep ñu ngi ay pour traverser la fleuve on a pas de moyens ku ñu merci beaucoup. je vais lancer un message solennel auprès de tout le monde Particulièrement euh, particulièrement toutes les autorités pour qu'ils fassent euh, nous soutenir sur, euh, sur la construction de ce pont parce que vraiment ce pont a demandé beaucoup de moyens, beaucoup de financement. certes, il y a la fatigue physique mais aussi financièrement, c'est impératif, c'est impératif. Donc, euh, sur, ce, sur ce point, nous demandons euh, plus, particulièrement euh, les le maire de la commune de Djambati et aussi les maire de Djaroumé, notamment en l'occurrence Carrefour Djaroumé et aussi le maire de Carrefour Djaroumé. Donc, Mboki, nous avons aussi ale morol kuma kam ele ay banki min fa saniyata te aussi wala mu kumot mi anon ko mu sawa boti ñanta nanta wolkela wala mi ñoño mako ñu dokon pom mi alon ko ba lola salo mi alon ko ba lola manam manko nan din ni misra tema poñi ay doko ñinin nka ay barki do doko ñinin nka le tout comme ay financier financement ñinin nka ñami donc financement ñi financement financier mi alon ko ay ko do balamu donc mbo mo be ñin eh, dani la mbawi fenkele moɓe koto tout ye moɓe dane autorité lu momo bon volonté lu momo na moyen soto fama fe naka bagara info tv gibe ah, bonne volonté mati ay mul ma koy pour que ñim poñi mi alon comme na lota jangi misra saloto jang poñi commencé bismillahir rahmanir rahim ay ban alhamdulillah rabbil alamin donc on min euh, fonkote na déplacement de jang jambi euh, mba falaye ni e ka vnya di le fan et sur euh, d'autres projets aussi. Mais alors encore Sam, euh, Inch'Allah, ou peut-être euh, après-demain, on va encore Touba, euh, Touba Djan. Euh, Kata ke poñi mi alon salo mi a yalo fana ka yen ka rokta ko la anin ka reportage ko la inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah abonné abonné ok il faut pas ala jibe kase ala jibe damade allez abonner Barrage Info TV allez abonner plus d'abonnements nous voulons plus d'abonnements nous voulons plus de vues. Nous voulons plus d'abonnements, plus de vues, plus de likes. Partout dans le monde, l'information reste fiable. Hein. L'information reste sûre et fiable aussi. Merci beaucoup.